Ndiaga Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk président bu association sénégalaise des utilisateurs des TIC nekk expert en ingénieur en informatique njiitu réew Sénégal euh, ci sommet de la paix et la sécurité en Afrique def déclaration euh, ba ne sax faaw ñu réguler réseaux sociaux yi gis nañ tamit njiitu réew mi wax na jëmale ci wàllum cybersécurité euh, sa analyse booy def ci déclaration bu président Sall par rapport à sa waaw li li li li ñu xalaat ci wax jooju mooy bi njëkk moo di ne euh, wax day ànd ak ay firnde mooy que ñoom buñu waxee ne a ah, internet bi kat indi ay njàqare ci Sénégal ñu indi ay firnde ci loolu firnde yooyu mooy lan mooy wone d'abord ñaata sénégalais ñooy jot ci xarale yu bees yooyu muy internet ak réseaux sociaux ci biir Sénégal yooyu di ci jot ñaata ñoo ci wax wax wax yu wax yu ñaaw ak wax yu doy waar ak ñooñu seen wax ban njàqare la indi ci askanu Sénégal def naa firnde yooyu mooy mën a tax ba mu dëggal ñoom nguur gi li ñuy wax ne internet ak réseaux sociaux yi euh, du indi lu baax ci Sénégal ñaareelu euh, remarque bi ma bëgg a def moo di ne depuis deux Sénégal am na loi boo xam ne moom mooy encadré li nit ñi di def ci internet ak réseaux sociaux yi ñu tuddee ko code pénal 2016 loi boobu am na ponk yu bëri bari bëri yoo xam ne day ñàkk ñi sénégal yi di doxalee te képp ku juum ay daan yu bëri mën na la dal boo xoolee ay article quatre cent trente et un ak yi ko topp bi njëkk daf ne képp kuy taataan xar nit baatu nit photo nit wala nga filmer ko wala nga vidéo ko te moom jox coobare pour nga def ko képp ku ko def buñ la jàppee ñu ngi tëj benn at ba juróom-ñaari at dinañ nga teg daan aussi cinq cent mille ba dix millions xam nga loolu lu doy waar la. ponk bu doy wa pakk yi yow nit ki mën a taxaw si mbedd mi di photo wala muy filmer ndik ni ko luut jàpp nekk yow kat yaa ngi def euh, collecte données personnelles mooy yaa ngi jël mandarga nit ñi te amoo si ndogal tëj la juróom-ñaari ak ñu jóge si doleen ba am beneen ponk boo xam ne daf ne képp ko jël mandarga nit muy données personnelles ci tubaab muy xar muy kanam gi muy baat bi muy photo muy vidéo nga dugal ko si internet ak réseaux sociaux yi bu mu si mënti nekk nag muy whatsapp muy twitter tiktok bu mu mënti nekk boo ko fa dugalee te kooku joxuloon ndogal buñ la jàppee tamit même daan yi lañuy teg benn at ba juróom-ñaari at yi taxaw parce que jël na photo nit dugal ko ci internet ak réseaux sociaux yi ñu ne fekkee da nga ko def te teyoo ko dañ la tëj juróom benn weer ba juróomi at amende trois cent mille ba cinq millions donc dama ne Sénégal am nañu loi boo xam ne dafa doy waar doy waar boo xam ne doy jéggi dayoo ba xam ne bu mu jógee si loolu nguur gi bu ne encore lii doyul lañ si teg leneen ñun dañuy jaaxle beneen ponk si loi boobu nee nañ képp ku saaga si internet ak réseaux sociaux yi buñ la jàppee tamit ba noonu rek six mois juróomi at ñaari at cinq ans dix millions amende képp ku wax waxi terrorisme te mu leneen li ngay wax dëgguwul buñ la jàppee tamit mu ngi noonu même chose cinq ans de prison donc dama ne ñun bu ñu amee loi bu mel noonu mais lan lañ ci mën a yokk moo tax ñun dañ ne képp ku dégg autorité Sénégal seen wax yi ñuy wax ci internet ak réseaux sociaux depuis deux mille vingt nag war nga am njàqare dañuy ñii fa lañ jëmee réew mi te loolu nag journaliste yi war nañ ci teey parce que bu fekkee wax sa xalaat dañ koy tere si dëkk bii ñi si njëkk a sonn mooy journaliste yi parce que fu nguur ki remettre en cause liberté d'expression et liberté d'opinion xamal ni liberté de la presse aussi nërmeelu na donc ñun ñëpp dañu war àndandoo xamal gouvernement bi ni amul lenn lenn lenn nag loo xam ne mën nañ ko yëkkati pour mën si sukkandiku pour ne dañuy gën a ñàkk internet ak réseaux sociaux damay fàttali ne lii am ci internet ak réseaux sociaux yi mooy am ci àdduna bii ñu nekk demal tribunalu Ndakaaru ñaata nit nga fay fekk ñu tëj leen kaso ci jëf ji ñaaw est-ce que di fa jóge ne Sénégal yi def katu ñaaw téef lañu dañ leen war tëj ci kaso bi wala dañ leen war a ñàkk pour kenn dootul génn kenn du ko def kenn xalaatu ko waaw lu tax nag moom ay ay quelques nit ñu nekk si internet bi ak réseaux sociaux yi di wax seen wax yu ñaaw ñu ne voilà donc ñuy waxkatu ñaawteef la ñuy sénégalais yi ci internet ak réseaux sociaux yi donc ñoom dañ leen di tere léegi ñuy jëfandikoo ko mais ko kenn mënu ko nangu ñuy dawal oto ñaata ñaa ñaata la accident la ñuy def ñu rey ay nit est-ce que mos nga ñu toog ñu ne woy woy sénégalais yi li ñuy rey si nit si tal dafa bëri donc sénégalais yi dootuñu dawal oto ko donc ñu ñëpp nañ teey si wax bi te xam ne kat lii nguur gi di waaj depuis deux mille vingt bu ko jàllalee ñun ñëpp ëllëg dinañ bëgg a jot ci internet ak réseaux sociaux yi mu tëñu donc nañ ci maanu nañ ci def attention te xam ne lii wonewul ne kat ñëw ëllëg day gën a renforcer suñuy droit day gën a dooleel suñu mëneel ak suñu ak suñu ak ak suñu liberté Euh, ñu bëri jàpp ni Ndiaga Gueye euh, réguler réseaux sociaux yi euh, su anto mën na nekk menace ci liberté d'expression nekk menace ci suñu démocratie yow loolu loo si wax gis nañu si ne nga déjà réguler nañ ko parce que am na loi yu fi nekk yoo xamante ni ku def naka su noonu ci réseaux sociaux yi ñu jàpp tëj la gis nañu fi kaaw Abdou Karim Gueye ak kile di Cheikh Oumar Dia ñu ngi ci kaso bi moonte de dafa am déclaration yu ñu defee ci réseaux réseaux sociaux yi est-ce que yow da ngay ànd ak ñi naan euh, euh, euh, lii Macky di wax bu sottee suñu démocratie dina am problème suñu liberté d'expression dina am problème. Sénégal moo nekk fi mu ne dëkk boo xam ne ci Afrique mooy dëkk boo xam ne ay xale yu bëri ñu ngi ci kaso bi parce que wax nañ seen xalaat ci Facebook Twitter wala ci réseaux sociaux loolu rek ay jàngat yu leeral wane rek non seulement ñoom loolu xeeb nañ ko bay ko ne di wax ne encore dañuy gën a réguler réseaux sociaux yi mooy dañuy fexe ba ni ñuy xañee askanu Sénégal ni ñuy jëfandikoo ak ni ñuy jotee ci internet ak réseaux sociaux yi donc loolu war na indi ku nekk njàqare xam ne kat lii di xeeñ bu antoo naru indi lu baax ci dëkk bi maintenant nag ñoom liñ ci jublu du par du aar sénégalais parce que yi defuñ lu ñaaw ci internet ak réseaux sociaux dëkk boo dem dëkk boo dem rek ci àdduna bi fa fekk ñoo xam ne ñu ngi ci internet ak réseaux sociaux yi di wax wax ju ñaaw di def gis-gis ñaaw dëkk boo dem nag mais doo gis benn dëkk président bu fu mu génnee rek joxoñ internet ak réseaux sociaux yi doo ko gis ci benn dëkk nag donc loolu nag bu ko ci jëlee dañuy toog jàngat naa mais mais lu waral wax yëpp depuis deux mille vingt li am moo di ne fii si Afrique bu ñu nee internet ak réseaux sociaux politiciens yi bëgguñu bëgguñu ko ñoom bëgguñu gis internet ak réseaux sociaux yi am na si dëkk yu bëri ba dem dañuy couper complètement internet bi lu waral loolu mais parce que euh, euh, chaque jour bés bu nekk si internet ak réseaux sociaux yi dañ leen di woon seen jëfinu démb ak seen jëfinu tey mooy que internet ak réseaux sociaux day indi li ñuy wax si tubaab transparence bonne gouvernance redevabilité te mooy ñetti moo yoo xam ne politicien africain bëgg ko ko dégg loolu moo tax ba ñoom fu ñu toog ñu ngi xool ci lan la ñuy sukkandiku rek pour mën a xañ askan bi ñuy jot ci internet ak réseaux sociaux yi loolu donc moo waral wax ci yëpp mais c'est pas parce que tout simplement internet ak réseaux sociaux yi indi na ñaawte ci dëkk bi wala tax na ba sénégal yi féewaloo man de gisaguma fii benn wax bu am si internet bi ba tax sénégalais yi di xeex wala ñuy xéewaloo. mais donc ñoom hmm. li ñuy mooy faagaagal àq ak yelleefu sénégalais yi si internet ak réseaux sociaux. waaye saaga yi nag saaga yi si réseaux sociaux yi Ndiaga Gueye yow noo ko gisee est-ce que tamit jotul ñu freiné ko loolu ñaar laa si bëgg a wax. waaw benn àdduna bi ñu nekk chaque jour nga romb ay sénégalais ñuy saaga saaga yi ñaaw bés bu nekk. est ce que tax na loolu nguur gi sukkandiku su ne mooy sénégalais yi duñ wax ka waxkatu lu baax donc il faut ñu gën leen a ñàkk leen a si tëj si si biir kër yi ba dootuñ gën di saaga non li nga du def si dund bi ñu nekk mooy la vie réelle lu tax nga bëgg ko def nag si internet ak réseaux sociaux yi internet ak réseaux sociaux yi moo àdduna bi ñu nekk benn la am na ñuy def lu baax am na ñuy def lu ñaaw bu fekkee lu baax li nga bëgg a gis loolu ngay bu fekkee lu ñaaw li nga bëgg a gis donc li nga xam ne doo ko def foofu bu ko def fii donc loolu yëpp ay prétexte la rek ay prétexte la rek lépp solo moo di ne wax ju ñaaw ju nekk si internet réseaux sociaux yi bu eggee si l' espace public national mooy dama ne askan bi bu si jotee mais journaliste yi la yéen journaliste yéen a yéen a indi wax ci wax ji fu mu egg rek yéen ko fa egg. parce que fii dañ nekk si dëkk boo xam ne jumtukaay yi nga xam ne Sénégalais yi fa lañuy ñuy taataanee seen xibaar mooy rajo yi mooy télé yi mooy journaux yi donc information yi nekk ci internet de réseaux sociaux yi bu fekkee presse bi jot liwu ko mais kenn du ko yëg d'ailleurs la preuve mais boo demee gis benn information ci internet ak réseaux sociaux yi xoolal ñaata nit ñoo ko gis xoolal ñaata nit ñoo ko partagé da ngay gis ne lu néew la mais pour askan bi jot si il faut que journaliste yi partagé ko donc wax ji foofu la lu tax dans les autres pays comme France lañ gën a xam nañ jël France un français bu nekk si internet ak réseaux sociaux yi mais xalaatoo presse française yi jot li waxam mais pourquoi nekk au Sénégal mais dañuy gis wax ju ñaaw mais ñu koy jot li la presse di ko jot lii mais lu tax loolu donc wax ji foofu la parce que Sénégalais yi ba tey bu ñuy taataan xibaar ci rajo yi la ñuy dem ci télé yi la ñuy dem du si internet ak réseaux sociaux ñi ko fay def bëriwuñu boo ko xoolee on est 17 millions ci 17 millions yi ñaata Sénégalais ñooy jot internet ak réseaux sociaux yi ba tey Sénégal xamaguñ ñaata la mais xayma nañ ne xëy na juróom-ñaari millions yi ci juróom-ñaari million yooyu ñaata ñooy jot euh, réseaux sociaux yi ñuy xayma ne peut-être que 3 millions 500 ba 4 millions sur si yooyu ñuy wax sax ñaata foo compte ñoo fa nekk compte yoo xam ne amul donc dañ bëgg a wax ne lii ñuy waajal amul benn firnde bu objectif buñ mën indi pour mën ko soutenir pour mën ko prouver ñoom kay di leen leen tax a jóg mooy que ñu leen di fàttali seen nekkinu démb ak seen nekkinu tey mu nekk loo xam ne neexu leen parce que ay nit lañ comme ñun ñu fexe ba loolu dootul amati. loolu mooy wax ji. voilà ci deux minutes euh, peut-être Ndiaga Gueye ñu gis ni euh, internet bi dafa cher trop euh, fii Sénégal malgré am na euh, opérateur yu wuute mais terewul daal internet ba léegi cher na am na ñoo xam ne mënuñ see jot euh, pour yow lan moo si solution si tënk rek juste deux minutes. Euh, li tax internet bi cher qualité bi baaxul te jot si mu jafe. li ko indi yëpp mooy que euh, marché Sénégal bu bu télécommunication mooy bu xarale yu bees yi dafa nekk li ñuy tuddee si tubaab oligopole mooy ña fay nekk di jaay bëriwuñu ñett dong lañu te benn marché bu fekkee ña fay nekk di jaay ñett dong lañu te ñi te ñi ñiy soxla la ñuy jaay ñoom bëri opérateur yooyu mooy nit ñooñ fa nekk du ñu seen biir amuñ si intérêt te ñoom dañuy waxtaan pour di xool. naka la ñuy def ba ñoom ñooy imposer consommateurs yi seen bëgg-bëgg loolu moo tax ba prix yi qualité bi baaxul jot ci jafe boo génnee Ndakaaru su gox goxaan yu bëri mënoo si jot loolu li koy saafara mooy fexe ba joŋante bi gën a tar gën a bari si marché des télécoms pour def loolu ñaari yoon moo mën a am benn bi mooy nga indi fi beneen opérateur muy ñeenteel bi maa ngi fàttaliku de 2013 bi nguur gu bees bi ñëwee doon nañu wax ne dañ fi indi beneen quatrième opérateur depuis loolu gis nañ génn nañ lu tax ñun xamuñu mais beneen ponk bi moo di ne fexe ba opérateur bu nekk ci ci ci ci ci marché bi doo nekk grossiste détaillant producteur parce que loolu boo ko defee day day tax ba concurrence dootul am ci marché bi pour mën a gën a firndeel li may bëgg a wax bu ñu jëloon exemple ci Sonacos mooy Sonacos moom moom mooy moom mooy defar diwlin mooy dem jëndi diwlin ci ci ci ci bitim réew Sonacos moom mooy grossiste bi Sonacos mooy demi grossiste bi Sonacos mooy nekk détaillant bi loolu mooy su ma soxlaa wala ci diwlin mën naa dem ci Sonacos jënd ko mais loolu bu amoon Sonacos pratiquement chiffre affaire bi nekk ci marché bi yëpp da koy jël boole ko képp ku dugg si marché bi mën na la si génne mais loolu nag moo am si moo tax moom moo am si marché de télécoms loolu moo tax nag ba njëg yi mënut a wàññeeku njëg yi chair nañu donc pour loolu nañu saafara ko dañuy modifier code de télécommunication dugal si ponk boo xam ne dañ naa benn opérateur dootul nekk grossiste bi nekk détaillant en même temps loolu mooy solution bi gën a baax. voilà Ndiaga Gueye euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. Euh, Ndiaga Gueye may fàttali ne yow yaay njiitu AGETIC nekk association sénégalaise des utilisateurs des TIC nekk expert en nekk tamit ingénieur en informatique.